Rewmi 24 TV dal leen ak jàmm ci xibaar samedi 18 novembre mu mel na rek tey ji match Sénégal ak Soudan bi lu doy waar moo fa xew première fois rek ginnaaw ba ñu defaree stade Abdoulaye Wade ak léegi mi ngi door am bii close rek la ñu def ci estade bi maanaam kenn du dugg rek ci fi nga xamante ne tey ji mooy match Sénégal ba lan moo waral nag état wu Sénégal rek jël ay mesures ci ne kenn du dugg ci estade bi mu waral leen rek ñu daal mu jaral leen ñu daal di koy def bii nga xamante ne tey ji gis nañ ne stade bi dafa wéet lool kenn nekku fa ndax bi nawle la ñuy tiit wala déet ndax xam nañ ne ndaw ñi tension bi nga xamante ne rek moo dox seen diggante ak Cour suprême démb ba léegi moo wàccagul ndax tamit loolu moo waral ñu def huis clos stade bi ak lu ci munti am daal mooy tey stade Abdoulaye Wade bi nga xamante ne da daan jax fees del du seen gaynde sax daan nañ ko fa gis waaye bi yoon mu mel ne rek lañ fa def dafa nuróog rek politique mu mel ne stade bi daal dañ koo defaral rek ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi nga xamante ne rek ñoom état bi kon boog mi ngoog match Sénégal bi daal nga xam ne moom moo dox ci diggante ak Soudan tey jii tombé ak 18 euh, novembre amul benn supporter Sénégal rek boo xamee ne yaa ngi foofee lan moo waral rek ñu daal def fii close euh, stade bi daal di ngay euh, jaaxal ñu bari.